Nous ndaje bi tey dañu ndaje mairie pour euh, recevoir des équipements de la part du maire de la ville Aliou Sall. muy cérémonie boo xam aussi lu ñu rafetlu la parce que aussi xalaatuñ ko des daal mais bu avons aussi bettuñu donc defuñu lu dul di ko rafetlu aussi di remercier le maire par rapport à l'acte bi nga xam ne moom la posé tey te yàgg na fait def aussi. préparation finalement, tout est fait prêt Les gens sont venus ñëw le football sur le plan sécuritaire et sur le plan organisationnel disposition yi nga xamne au ODCAV bi war na ko mën jël jël nako. ko dess dal moy ñu ñëw le dimanche Yalla may ñu fekk ak tal ñu football ko ci jàmm ak salam. Wa ñaari équipe message yi ñu leen di laajte message yi nga xam rek mom lañ habitude di lancer Moy que muy message de fair play et de sportivité ñu xam aussi sport toujours il y aura un vainqueur et un vaincu à l'issue de cette rencontre ñu xam ay doomu géejawaay ñoy football buñu paré aussi ay doomu géejawaay ñoy ñuy baatu ci gox yi donc ñu rafetal ko ba nga xamni que sécurité dina ci am nga xam kuy ñibbi rek danga ñibbi si jamm ak salaam. Guédiawaye info di nuyu aussi yenen euh, organe de presse fi nek euh di rafetlu aussi euh, seen teewaay fi di wax ni tay dañ doon recevoir euh, waa ODCAV bu euh fi ci hôtel de ville bu Guédiawaye monsieur le maire Aliou Sall absent. quelques conseillers municipaux ak le secteur général ak équipe bi nga xamanteni ñoo nek ci maire bi yëpp. Nous dalal fi waa odecave pour remettre leen 54 paires jeux de maillot et 54 ballons pour l'ensemble des ASC du département de Guédiawaye Nous avons lu am solo li aussi maire comme appui pour la jeunesse de Guédiawaye def comme appui pour l'ensemble des ASC du département de Guédiawaye def comme appui aussi pour l'odecave de Guédiawaye bi nga aussi représenté les ASC

maire président ko profite aussi d'inviter tout le monde l'ensemble des responsables politiques l'ensemble des personnalités les imams les délégués de quartier les notables la jeunesse pour que nous soyons président finale en tant que maire de ville nous koy je vous remercie. message bi lancé pour la pour la jeunesse de Guédiawaye nous que ñu football fête la ñu xam ni euh, Guédiawaye def final départementale nous ñu que le maire gagne ñu supporter ci jamm ba ben violence bañ fi am ci jamm ba ñu xamni ne géejawaay ñun ño bokk nday ak bay collaboration bi moy li fi nek rek parce que mën naa ni euh, bu fekkonté ni amna nenen nu mu mel peut-être obligation lay nek ci ñun ñu appuyer décave parce que jeunesse et sport ci les compétences transférées la bokk mais nag collaboration bi entre le président de l'ODCAV ak son équipe ak le maire de la ville ak son équipe collaboration bu rafet la moo waral maire tey mu def li nga xamante ni lu lu kenn mësul def la mooy képp kuy ASC ci département de Guédiawaye génn sax Guédiawaye parce que ODCAV bu Guédiawaye xaw na koo afee sax ay ASC yu moo tax ñu nekk 54 ASC ci département bi ba ci parcelle sax am na ñu bokk parcelle yoom tamit ñi ngi bokk ñi ngi affilié ODCAV bu Guédiawaye moo tax ñoom mu def appui bi nga xamante ni am na solo trop man de mosuma ko gis mu def lu toll nii moo tax ñun aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko encouragé di ko wax ni ko c'est le maire de la ville ñun ñëpp ñi ngi ci ginnaawam te li muy def ci sport bi moom lay def ci yeneen secteur